Baye Zar yi nga nekk manager Sidi Diop mu gagné tube de l'année ban fierté nga am ci moom. salaamaaleykum adduna salaamaaleykum Sénégal oui fierté bi ñu ci am de mooy sant yàlla jëlaat ko dellowaat ko ci yàlla sant yàlla ci yàllaam nga parce que bu dara taxul rek ci yàllaam nga moo tax mu defal ñu lii. parce que liggéeyuñ fi loo xam ne ni que mën nañ ñu mën nañ ñu euh, mën nañu wax ni que mérité nañ lii tey xam nga euh, parce que ak suñuy naaka naataangoo lañ ko bokkaloon xam nga yàlla def ñu ñun ñu jël trophée bi kon fierté la. te lii moo ngi ñuy wonaat ni ko ñun ñoo ngi liggéey parce que daaw ñoo jëloon révélation de l'année ren ñun ñoo jëlaat tube ñoo jël tube de l'année kon déwén ñoo ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ñu gën a ubbeeku. ci musique euh, ak euh, catégorie bi bokk ngeen ko artistes yu mag ah, ngeen ñëw jël ko nii ak ci benn album bi ngeen def loolu tamit euh, lan nga si. c'est pour cela que ma ne sant naa yàlla ci yàlla am nga parce que du ci sunu ngóora te du sunu du du sunu njàmbaar xam yàlla la ak di liggéey nànk nekk ay xale nekk ci suuf di liggéey. bëgg egg fu kawee bruit bi ñu dégg ci moom affaire concurrence lay jël moom ak waale dañuy concurrencer moom ak euh, artistes yi dañuy concurrencer day gaaru Wally léegi est-ce que teelul ci moom bruit boobu yëpp ci moom mu nekk xale. je pense que yow yaa ngi ci presse bi te Sénégal site bu mag la est-ce que mës nga dégg Sidi di jàll ni ku ko mag baat musoo ko dégg. musoo dégg mu tontu tontu bu ñaaw ci nit musoo dégg mu gaaruwaale ni suuna ko waaw ah, comme li ñuy wax nag musique moom musique la alors gars yi dañuy woy suñuy woy woy bi dafay mel ni nga nga jël ci téere alxuraan di xool sooy wax yenn saa nga nekk ci biir jumaa bi suñuy wax dañuy mel ni yow lañuy waxal su fekkee ni ni que da nga mel noonu xam nga mën naa jël ay exemple ay woykat yu bari yu woy benn affaire te soo ko xoolee day mel ni ni que yow lay waxal te or ko waxul ak yow waaw c'est pour cela que nag nit ñi di woy instant nit ñi dañ doon ñuy wax ñuy jéem a woy ci ay ak yooyu noonu woy nañ ci ay thèmes thèmes yi nag dafay universel mën nga cee jël keneen mën na cee jël keneen mën na cee jël loolu kase la mais que yow mii nekk ci ci presse bi xam nga ne ni Sidy ñàkkul yar bay jànni baat ay magam. Euh, kon concurrence bi mën naa wax moom ak Wally am. moo kenn amul waaw ñun dañuy liggéey di dem te affaire yi sax su amul concurrence du dem yéen soo bëggee egg fenn fii da ngay da ngay am looy xool pour egg foofu mais que concurrence bi na seen quoi ci sunu niveau amul concurrence. mais su amee concurrence tamit dafay seen parce que dañuy liggéey avancé. ngeen def contrat en deux ans cinquante millions ñu bëri Franck Seydi am na ñu bëri ñu naan dafa tuuti ci moom teg fu mu teg tànkam instant bi kenn mënu ko fi jëlee lu tax ngeen accepté loolu. yaa que xam nga tey jii nii nii que Bamba Faye ak euh, Mahou Soubatel ñoo def conférence de presse bi daal di siwal cachet bi et que cachet bi cinquante millions ci ñaata date lañ koy joué. si ñaata date lañ ko rejoué cinquante million ak musique Sénégal fi mu toll dara la ci Sidy carrière am deux ans la def kon ñoo ngi sant yàlla ci lii même su nekkoon dërëm ñoo ngi ci sant yàlla pour que le fait que ñun ñu ñuy joué ñoo ngi sant yàlla ci loolu waaw parce que nag opinion publique bi man mënuma ci dara tantôt ni que koo laaj AVM rek dina la wax ne su ma gisoon lii. waaw mais que ñun ci suñu niveau am nañ ay kilifa yu nekk suñu ginnaaw te yaa ngi gis ci biir Papis Konaté mu ngi woon ci biir Ibou Thiombane mu ngi woon ci biir ñoo ngi bàyyi Iba kër ga ñoo ngi bàyyi Ousmane fay kër ga ñooñu ñoo ñuy coacher ñun dañuy taxaw nii rek di wax mais que duñ ci lenn li nekk suñu ginnaaw moo ñuy coacher teg leen fii seen tànk ñu teg ko fa. yow lan mooy sa problème ak biir. man awma problème ak kenn. amoo leen problème. bijou bu ah, nekk yow bijou bu 2S bu Faramareen laa mën a wax mun ma wax animatrice bi mais bijou buy liggéey ak Wally seek parce que da ngeen am problème parce que yow ak moom comme yaay manager moom day liggéey ak waali da ngeen am problème. moom daf la wax ne dañoo am problème. moom de nee dawul saa la yaay ndeer ci ay coow. Ah, man instant nii li ma gën a tal ak sama groupe mooy ko liggéey avancé jéem a déwén fi ma nekk ma nekk fu gën a kawe fii loolu laa gën a tal quoi sincèrement. ay wax. non taluma benn wax quoi ak kenn. wax dëgg mais am ngeen problème waaw wala de. man su fekkee ni problème dafa am gisuma ko parce que bii ju xaw ma ko sax. billaahi wallaahi xaw ma ko.